ak euh, Cheikh yerim sek jarul layam layame touri yi ah. dañuy ñew directement ci touri may mëna Ndour mom euh jëkër ji dama bal nak parce que bëgguma di wax ci jabaru jàmbur wax deug yalla ndax man dama am soxna te ñepp am soxna waye del xol sa jabar te nga moytu duggam a génnam bari na ci bureau ministry amna lenen lu ci rax nak rax nak xam nga sénégalais dañuy ne toujours promotion canapé mais fala mëna voilà donc seetal sa jabar bëgguma tasaat amatuma jot nak tassat benen sey ndax bama fi génnee di wax ci Cheikh Yérim sek ak takku soufi ak yoyu astu joon dafa dem bayiko ko may mëna Ndour fay bëgguma seyam tas voilà waxewuma mako fof. mais jëkër ji del bay xel sa jabar li muy doxantu ci bureau bari na te voilà foofu laa mën a yem daal voilà li ci dess nak nañu euh, wax ju mat dof moko mom ndax borom xel mom jarul ngay matal wax bo làmbee touti rek la ca des mom dina ko yeggal manuloo nak nek gor yalla di bàyyi sa jabar muy taxawal ci ay bureau ministre di indi ay chèque yu douf di indi ay xaliss yu dul jeex nga yaakaar ne loolu yeb daf koy def rek ci mali for voilà donc bàyyi loolu xel jeukeru may meuna ndour la wax nga bàyyi xel sa jabar li muy tali talé ci télé Sénégal yeb ni xaliss bok na ci waye amna voilà jëkkëru Maimouna Ndour Faye fay waxal enquêteur nga a gendarme nga voilà man ngaa enquêtal sa bopp feetees enquête waaye bul rey kenn nag voilà léegi nañu ñëw ci vraiment euh, kii nga xam ne mooy Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck il faut sénégalais yi baal leen ma baal leen ma voilà baal leen ma jéggal il faut sénégalais yi ngeen bàyyi xel voilà décret bi ma wax léegi ci ñaari gendarme yooyu dinaa ko poster après comme ça di ngeen ko mën a am décret bi voilà di ngeen ko mën a am je la le poster voilà décret bi nga xam ne moom la jëlee euh, gendarme yooyu jox leen liggéey bu baax a baax a naa ko poster après voilà léegi dama bëgg a ñëw ci ki nga xam ne moom mooy Cheikh Yérim set voilà cheikh yerim Ndumban sek boobu la len di may Ndumban. De len ko den Ndumban ngeen ko boo koy ne ndumbaan mu lay sagal day beugul sénégalais yi limu nek ñu ne la nga doon soko ko dafa fek nga gën caa ñaaw voilà Ndumban bi moy turu gewelam beugul kuy laal bobu parce que beugul nee aduna àdduna gewel. voilà cheikh Yerim xawma pour lan nak. ça doit être une fierté parce que nit mom lo doon dang ci fier wax deug yalla. wax dëgg dëgg dëgg yàlla géwél yu baax yi géwél mbaay ah ñu baax la ñu voilà Cheikh Yérim Ndumbaan Seck la tudd bëggul kuy laal ndumbaan bi nag parce que moom dafa bëgg a bokk fa mu bokkul vraiment te loolu dafa ñaaw te nit ku ne la nga doon waroo ko bañ parce que loolu nga doon loolu la yàlla bindee doon ko te nangu te fier Cheikh Yérim Ndumbaan Seck Cheikh Yérim Ndumbaan Seck moom mooy waaj voilà jarul jarul layam layami jarul rus voilà Cheikh Yérim Ndumbaan Seck Cheikh Yérim Ndumbaan Seck maamam moo ko yar maamam moo ko yar ñu bari ci yenn senegal waxoon nañ leen ne yaayam ak papaam ñoo bokk benn baay déggu leen ma de yaayam ak papaam ñoo bokk benn baay du siif de dañu doon jëflante di jëflante inceste xam nga luy inceste inceste lañu xewaloon ci kër gi yaayam koñ bi mu dëkkoon sax kaju fa dañu doon jëflante di jëflante di jëflante di jëflante ba yaay jibiir waala voilà macha allah uus ngom maa la naw billaay wallaay cheikh yërim ndumbaan sekk ndeyam ak bayam ño bokk ben bay xam nga li tax may wax li du manque de respect djegal len ma sénégalais yu bari wax lu tax ñu wax li tax yalla bëggul manam deret bi dafa djegé lol day def ñak jom ci nit day def ñak jom ñak jom xam nga ñak jom moy nit kudul rus manam ñak rus inceste lol lay def ci nit donc Cheikh Yérim Ndoumban sek ndayam ak bayam ñoo bokk benn baay waaye ñoom li ñuy ne nañu yàlla musal ndeysaan yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam daan nañu ko wax mu ne say doom sax bu ñu màggee góor ak jigéen fexeel ba nga séparer leen bu leen bàyyi ñuy bokk dëkkuwaay wala néeg voilà Cheikh Yérim nag mbeyam ak baayam dañu doon jëflante ñoo bokk benn pap di tëddante di tëddante di tëddante demoon nag ba nekk sax boyfriend girlfriend maanaam nit ak corom di teud di teud di teud li nak man neena len man su wax kilifa yi ñomay jox kilifa yu dëkkoon ak ñom ñoma wax lii ñu ne ma kii nii la mëna mel man ta rus ndax mujju gi dañu ne mom dafa dem ba nday gi rusatul ci koñ gi mu dekk sax ndeysaan koñ gi sax rusatu fa parce que lolu la plupart des des des des des temps bu la dalé da ngay am lu la metti lu la naqari lu la metti ci adina mais non non ñoom dañu demoon ba yaakaar ne loolu légalité la maanaam dañu demoon ba parce que ngeen jéggal ma ngeen jéggal ma moom Cheikh Yérim Ndumbaan Seck tamit ginnaaw ndeyam ba mu ko doon def ak baayam ñuy ay doomu baay moom it dafa doon tëdde sëram Cheikh Yérim moomu dafa am benn sëram boo xam ne ndeysaan da ko doon tëdde di ko tëdde di ko tëdde di ko tëdde ba mu gi sër gi mënatu ko supporter après sër bi defe naa un moment donné ndeysaan gàcce bi mu ko jàppee moom dafa xaru sœur bi loolu mooy dëgg Cheikh Yérim Ndumbaan sekk li may wax nii ne leen ko na ko dindi bindkat la c'est un journaliste Cheikh Yérim Ndumbaan Seck la tudd voilà ndeyam ak baayam dañu nekkoon ay boyfriend girlfriend maanaam ay coro di tëddante di tëddante di tëddante di tëddante di tëddante ba moom mu judd ci nekkul ne da kii dafa siif kale mu biir non c'est quoi nekkul ne kii dafa fekk kale fekk ko tëdde ko siif ko déedéet kilifa gi nee na dañu nekkoon ay nekkaale baayam ak ndeyam ñoo bokk benn baay dañu dem di nekkaale di nekkaale di nekkaale di nekkaale ba mu ëmb moo tax ñàkk jom gi ngeen gis ci ñoom nii mu ne mi ngi koy jéggalu sénégalais yi loolu mënta ñàkk mu ne kii nii rek la mën a mel mune ki ngeen gis ni mu genn bëgg a taal senegal mi ni rek la mel manul mel nenen te du léegi la tambali dégg ngeen ko bi muy wax ci Ousmane Sonko déggoon ngeen ko bu njëkk ba bi Ousmane Sonko genné livre am ba solution tambali wul affaire affaireu Cheikh yerim sek du léegi Cheikh yerim ndumban sek affaire am du léegi rek la tambali yàgg na xam nga bi xam ngeen awma mënumaa jékki-jékki rek ne Cheikh Yérim Dumbaan Seck xam ngeen loolu man yàgg naa koo ne Cheikh Yérim Seck mosumaa xam Dumbaan bi donc xam ngeen ne man lépp lu may wax rek dafa am fu ma koy jële waaye ki ma wax dafa ma ne ndeyam ak baayam dañu nekkaale woon maanaam nekkul ne rek ndey bi ak baay bi dafa ëmb wala siif ko par accident non non non dañu nekkoon ay nekkaale di ko tëdde di ko tëdde di ko tëdde di ko tëdde ba mu biir Cheikh Yérim Seck ndeysaan ba mu juddoo ñu jox ko maamam waaye comme deret du fen Cheikh Yérim Seck bañ ko joxee maamam yóbbu beneen sëram aussi ci maamam ba mu màggee moom it band bi muy tëddee sëram bi di tëddee sëram bi di tëddee sëram bi laaj naa paa bi ndax doom judduwu ci mu ne wóoru ko mu ne xëy na amaana biir mën na cee am walla dara famille bi di ko nëbb waaye xam naa ne daal sër ba génn na àddina te nee nañu dafa xaru lii la ma kilifa gi wax mu ne ma loolu ndeyam ak baayam doon def moom doon na ko def ak sëram mu ne ma plus grave que ça mu ne te àdduna kenn du fen ndax Guinée fii la ne soriwul Guinée Conakry soriwul ah Guinée Conakry Guinée capitale bi nekk Conakry waxuma Bissau dinaa ñëw ci Bissau waxuma Bissau mais Guinée Conakry Guinée Conakry la Cheikh Yérim Seck dem ba mu demee dafa siif ñaari sër yu bokk ndey ak baay Imaginez le deux sœurs qui sont de même mère même père Wadi, je man dama tok ma je suis ma bind je mais papa je ne j'ai un problème à comprendre quel est le problème Je ne ko mais je ko problème doomu ne a def je ne lii moo je ci yu Cheikh def Je ne je Jeune Afrique parce que président africain chantage ne leen jox ma nangam ma bindal la nangam bu président bi bañee mu dem mu bindal ko ay fen maanaam loolu la doon utiliser Jeune Afrique ba ñu dàq ko Jeune Afrique démb dégg ngeen ko ci biir waxtaanam mu ne waaw vingt million jox nañ ko Ousmane Sonko ba Ousmane Sonko di laaj Macky Sall protection waaw ba ñu joxee vingt millions Ousmane Sonko vingt millions d'euros wala de dollars cela tey boo ko traduire ça te donne douze milliards de francs fa ndumbaan ndumbaan ndumbaan Seck Cheikh Yérim ndumbaan Seck démb fenati na dem na ci benn tele boo xam ne encore une fois nee naa leen borom tele bi jigéen la te li muy doxantu ci bureau ministre yi bari na lool ma avertir ko jëkkëram rek wax ju mat nak daf yee ko moom te parce Sénégal la fa xew dañ ko tuddé promotion canapé dinañ la promouvoir de way il faut nga joxé canapé bi ba pare léegi nag wax ju mat daf yee ko moom Cheikh Yérim Ndoumban sek ñu né ba mu nekkee Jeune Afrique gisoon ngeen fi ben président Dadis Dadis bu Guinée ba fi génné Nelen, c'est un bandit chez Yérim là ce Sénégalais un imbécile il est venu ici il m'a dit de lui donner 300 millions milliards je lui ai dit mais moi j'ai pas 300 millions, milliards je vais le donner aux Guinéens de ngeen ngeen ko Dadis donc Cheikh Yérim Ndoumane Seck de la Macky Sall de recevoir ci palais jox ko a ay milliards yu doy ne dire demal wax lu la neex ne va dire tout ce que tu veux demal ce lu la neex

ku bëgg focus man nga tok sa kër focus ku bëgg focus man nga tok sa page focus man ma ngi focus waye gat sa gat sa lañu wax té nit bu indé dañ koy indil tontu yu leer yi tégal ko Cheikh Yérim Ndoumban sek dafa génn mu né 20 millions de dollars waaw 20 millions de dollars lañu jox Ousmane Sonko la bëgg wax waaye ñemewul tuddu turam néna Ousmane Sonko ba Ousmane Sonko di laaj Macky Sall protection pour ñu protéger ko bu leen fàtte ne c'est même Cheikh Yérim Ndoumane Seck ànd ko ak suñu benn journaliste de la place Baba Aydara du journaliste faux journaliste bu nekk fii ci Amérique Baba Aydara daw na dee na léegi moom moom dee na léegi quelque rajo laa koy gis par semaine par samedi wala dara mu génn ci benn rajo wax tuuti waxi daf génn ci Baba Aydara yéen a ngi koy fàttaliku moo ma si siiwaloon fii ne euh, euh, affaire Tilo Oil bi Cheikh Yérim Ndoumane Seck ak Baba Aydara ñoo ko toggoon élection deux mille dix neuf léegi nag élection deux mille vingt quatre ñoom nee nañu Ousmane Sonko du bokk déglu leen de ñoom nee nañu Ousmane Sonko du bokk moom Ndoumane sekk mel mi ñëw na nee nañu Bassirou Diomaye Faye du bokk moom Ndoumane sekk mi aussi ñëw na ba léegi nee nañu élection du am moom Ndoumane sekk de moom mel Ndoumane Seck mi. ñew na néna Ousmane Sonko dañ ko jox 20 millions de dollars pour mu changer contrat li nga xamné mom moy pétrole yi Sénégal ak mën a fen man xawma nit naka ngay féné ba jël sa loxo duggal sa bir taat xéñ ko yow ci sa bop xamné sa taat bi day xassaw ba légui nga koy def ba légui ngay fén moi je peux pas comprendre mënu ma comprendre je ne peux pas comprendre nit naka ngay fene yow nga jël say fen di fen xam ne dangay ngay fen nit ñi xam ne dangay ngay fen ñi lay seetaan xam ne dangay ngay fen yow ci sa bopp nga xam ne ñi lay seetaan xam nañu ne dangay ngay fen nga continuer di fen man lii moo ma jaaxal ci Sénégal lii rek